Alors la situation est bonne depuis quand même assez longtemps, grâce aux autorités, je pense particulièrement au sous-préfet et au préfet qui sont à mes côtés, mais surtout mais surtout je pense, euh, je pense à tout ce que nous avons fait ici. Non seulement, bien évidemment ces 5 chèques de 3 millions au GIE, mais plus que ça, en gros euh, quelques 240 millions par an dans le cadre du programme social minier qui permettent de construire des projets, qui permettent de travailler tous ensemble sur des projets solides comme la construction d'écoles, comme des forages d'eau avec, des, châteaux d'eau, comme des marchés, je pense à un marché qu'on la première paire cet après-midi, euh, comme des écoles primaires et secondaires, etc. Donc on est véritablement aujourd'hui tous ensemble dans un projet de développement durable, de développement long terme et avec toutes les populations de la région. wax ni ñun euh, tey jii bi ñu ñëwee ñuy joxe cinq chèques mu ni ñun li ñuy def raw na cinq euh, joxe cinq chèques parce que da nga bi nekkee ci sud euh, ci zone bi dañu ñëw pour liggéey ak population locale yi liggéey ak ñoom ci liggéey liggéey boo xam ne aussi ñoom dañ ciy gis seen bopp d'ailleurs à travers ay projet communautaires yoo xam ni yéen te ngeen ci seen bët muy jëm ci wàllu jox leen ndox jëm ci wàllu euh, wergu yaram jëm ci wàllu éducation euh, actuellement fi ne nii am na ay benn projet boo xam ñoo ngi ko def Tivaouane muy benn marché bu ñu tabax Tivaouane marché boo xam ni euh, cinquante cantines la bon boo benn projet la mais am na beneen projet boo xam ne aussi tey jii ci ngoon sax. ci lañ war a def lance pose pierre euh, la première pierre donc euh, pour le marché fu ngi nekk Ndoukoura euh, dans la municipalité de Mewane bu loolu wéyee aussi dafay ñaax population yi nii leen bon ñu dëkk ñooy am problème ñooy jotee e souvent dinañ am ay ay ay ay ay ay ay ay rëq-rëq yu am ci diggante population yi peut-être ak société bi mais yooyu yëpp li am solo mooy bu amee ñu am benn cadre boo xam rek nan toog ñu waxtaanee ko bu ko defee lépp mën a jaar yoon ñu ànd joxante loxo bu ko defee mën a liggéey. parce que ci liggéey ci la avancement population yi jot euh, euh, mën a xaj ci la avancement euh, comment dire société bi xaj donc moo ne avancement société avancement population yi donc finalement avancement Sénégal la mi ngi remercier nag autorité yi nga xam ñoo ñu gunge ci liggéey boobu nga xam ni buñ ci ñoom buñ ci nekkul woon liggéey bu du yombee comme ni mu yombee tey jii ñu ci cité nag le préfet de Tivaouane le sous-préfet de mais Méouane ici présent ak sunu partenaires yi yu demee ni comme chambre de commerce suñu centre forêt ñi nga xam ni tey jii bu ñuy joxee ay bi ñuy joxe ANEF bi ñuy joxe bu ñuy joxee bi ñuy joxee chèque tey c'est parce que am na liggéey boo xam ni moom la lañ def en amont muy defar GIE organiser leen jël population yi organiser en GIE formaliser GIE yi tijji leen compte bancaire yóbbu leen formation euh, ba noppi tey jii ñu leen di jox check di remercier aussi euh, le chef d'agence euh, bu bu CNCAS bu Tivaouane parce que bi ñëwee ci moom pour tijji compte bancaire yi je crois que da cee taxaw ci même jour la def yëpp ba tey jii lii mën a yemb di remercier donc suñu partenaire di remercier population yi fàttewuñu journalistes yi aussi parce que gis nañ lu ñu xawlee bu ñu leen woowee ngeen ñëw teew di leen wax ni leen aussi compagnonnage la boo xam ni du dàkk ba faw on va continuer pour toujours lu nu soxla bu nu xewlee dañ leen woo lu ngeen ci mën a jàpp ngeen jàpp si bu ko defee ñu àndandoo liggéey pour le bien des populations ak ak kii. waa def na def na une semaine centre forêt euh, encore une fois ñaari def na ñaari formation benn formation comptabilité de base la woon moom la waa centre forêt defal defal GIE yi bon bi ñu pare ñoom seen formation ci pour comptabilité indi nañ leen GCO suñu euh, département environnement ñu tàggat leen aussi ci lépp lu jëm ci technique de pépinière parce que dañu xalaat ni comme zone bi euh, maraîchage bi daf am solo te également GCO xam nga ci suñu liggéey ñun bu nu gasee bay jàll dañuy delloo suuf si te bu ñuy delloo suuf si dafay laaj ñi delloo garab ya fa nekkoon donc danoo bëggoon bu ñu koy def ñu def ko de façon participative maanaam population locale yi gunge ñu ci loolu. Malaayka président GIE e, bokk Yurmende xanaa kontaan ci loolu rek hmm, di sant waa GCO di sant kilifa yi fi teew yëpp vraiment def nañu lu rafet ndax ku ñëw ci kër ñu jox la ndékki nga ndékki ba suur boo nga sa xel war dem ci ne di bu añ jotee di nga añ. bu reer jotee di nga reer bu tëdd jotee di nga am foo tëdd GCO nag jox nañ ñu ndékki gor bu nee nag gor gor gor nag war na mën a taxaw ne man de mosuma waaye régguma gar gor woon ko wax ñun waaw tàggat nañ ci ci nu ñuy gérer agriculture ak élevage ñaar yooyu tàggat nañu ci wax dëgg yàlla ak nu ñuy gérer environnement waaw ñett yooyu mais mën nañ ci tënk tuuti rek mhm. waa benn fii amuñu woon wax dëgg yàlla poste de santé bu ñu mën di fajoo amuñu woon tamit euh, école bu normal bu sunu doom yi mën a jàng amuñu woon tamit mosquée bu ñu mën di julli mais loolu yëpp wax yàlla am nañ ko fi ñu nii kon ñu ngi ñu ngi leen di sant. ñetti millions yi ñu jox. la leen war a mën a yi ñuy jox. xanaa ñu xool foo nga xamante ne bu ñu ko fa dugalee rek. ëllëgee bu ñu ñëwee di xool lan lañ ci def. ñu won leen ko waaw xam nga sëy yi dañoo bari benn bu nekk limu mu ñun li ñu ñun suñu li ñu choisir mooy ñaar mbiru mbay mi ak càmm ji ca la koy dugal.